dëkk maag Waly Seck xaw ma yaayam cosaanam xaw ma baayam cosaanam xam naa ne baayam wonkat woykat la rek mais damay gis ci Waly loo xam ne tey jii Waly sax mën na maa daw hmm. ndax Bijou Ngoné bi ma ko njëkkee wax ne Waly damaa gis jinne tey loxoom ndeyjoor bii Bijou Ngoné dafa ma ne waaw dëgg la hmm. maamam amoon na ay jabaru jinne Bijou Ngoné 2STV léegi xam naa dañoo dem waxtaan gi seen biir bisu ngoon invité ma mhm. nan ma mënoo bàyyi jàmbur hmm. man damaa jàppuwaale man xanaa damaa war a dem daw dem ci Serigne Touba gis nu muy gise sëriñ Touba nu muy gise Seydina Mouhamed nu ma yegg gi sama borom ndax nañu xam ne martaba yàlla bu la bëggee defal wëñ wëñ hmm. wëñ lañ lay tegal nga di ci yéeg yàllaa ma won waali duma ko sàkku sunu boroom moo ma woon kan mooy waali ni ma sunu boroom wone Macky Sall war a doon président mm-hmm. ni ma sunu boroom wone Abdou Diouf mu wàcc mm-hmm. gis nga seen yooyu laa bëgg ñu génne ma ci man waruma sama bopp waali yàlla moo moo won waali woon ma jinni mu àndal mm-hmm. ak yeneen yàlla dafa ma may baatin nañu xam loolu man su ma doon sàkku pour ku may gis Seydina Mouhamed laa nekkal wala yàlla dima yóbbu ma yéeg aras fekk yàlla mu toog kursi euh, yu man su nekkoon maay defe sama bopp man maay doon jaamu yàlla duma ma jaamu kenn nag du ma sibaru kenn man Selbé Ndom jaamu yàlla laa doon taalibi Sëriñ Tuuba hey xëccoo ma leen de xëccoo ma leen man Selbé Ndom taalibi Sëriñ Bàmba laa ku ma bëggul bëgguma la exemple mm-hmm. fii lu fuy ja lu fuy waay jaay rek bés dina ñëw mu lamb tiitar beeg bew beeg dara ko fi jarut mhm. ndax loo fi mënta am ci àddina bis dina ñëw nga bàyyi ko fi sama fauteuil bii ma toog de bu may dee kenn du ma suulaale ak moom fii laa koy baax asima kër gi yére bii ma sol bu dee yére téeméer la sax fii laa koy baax moo tax ma doon taalibe suñu Tuubaa di dal nañuy bàyyi naan dañ may jéem a déstabiliser man kenn mënu maa déstabiliser ku am sama àjjana nag téye ko ku am sama àjjana teel bu ma kenn may àjjana man ki ma yaakaar wóolu ko doyloo ko muy yàlla li tax ma teg ci Seydina Muhammad yàlla ko teg yàlla ñu tànnal Seydina Muhammad ne mooy xayru xalqilaa mooy awwal di aaxir di zahir di baatin yàlla tagg Seydina Muhammad ne ko lawlaa kamaa xuliqat shamsun wala qamarun wala nujuumun wala lawxin wala qalamin fekk sëriñ Touba. fekk sama baay doon taalibe sëriñ Touba ma doon taalibe sëriñ Touba. mais leneen du dul loolu lépp fi laa teg ngelaw la ci man rek. Mhm. yàlla mi nga xam ne moomu bind may ma lii. Mhm. kooku moom mënuma koo baax. xalaatuma koo baax sax man. Mhm. comme ni nga ko waxee ni ñu waxoon sànq rek ci Papa Thione mu nekkoon euh, ndaanaan nekkoon kilifa tamit mu mu amoon lu bari ci loo xam ne euh, ci Wally sekk tey jii nii képp koy xoolee da koy dem xoolee ko ci euh, Wally Seck tey boo digal tey Wally lan nga xëy wax. ah Wally Wally ah Wally na góorgóorlu muñ rek Wally góor la. Mhm. Wally góor la du jigéen di Wally Baye Fall la taalibe Cheikh Ibra la. Mhm. Wally soo bëggee mu may la xaalis danga koy waatal ci barke Cheikh Ibra. Wally taalibe Serigne Touba la bëgg na sëriñ Touba lool bëgg na Cheikh Ibra lool li mu am mi ngi koy bokk nit ñi. Mhm. léegi nag euh, la Thione Seck doon woy naan balaa ngaa xam. Mhm. li sa baay daan daj. Mhm. nga màgg xàmmee njabootu wër la añ réer ndékki màpp ci sa kaw ah, ah. waala ngi doog a doon bàyyi nag fi mu ne léegi du xam. Mhm. waaye bu demee ba ci kanam dina toog xalaat indiwaat wooyu boobu papaam wooyoon. Mhm. balaa nga xam li coon sekk daan daj. Mhm. léegi màgg nga. tekki nga njaboot gi yépp wër la. lépp ne màpp ki sa kaw waale ngi doog a doon kilifa. di ko ñaanal yàlla mu gudd fan ak wér rek ndax euh, sama rakk la sama doom la. tey jii ban rafetlu nga du am tey ji ku ci mel ni papaam Youssou Ndour tey téye loxoom soutien ko tuuti. xam nga loolu seen vie la xam nga man Youssou Ndour téyewul sama loxo. Mhm. Youssou Ndour ak Thione Seck dañ naan ànd. Mhm. ay xarit lañu woon. c'est normal Youssou Ndour téyewaale. Mhm. Youssou Ndour dafa téyewaale avant avant Thione Seck di feebar wala muy dee da ko téye. du dëgg. ñoom luñ ci def rek luñ ko coon seen bopp lañ ko defal. tey luñ defal waali rek defaluñ ko coon. seen bopp lañ ko defal ndax Youssou Ndour am na doom buy Birane Ndour ak ñeneen mm-hmm. xale bu loxoom setee mën naa bokk ak ndab mag ah, mag bool mm-hmm. te waali loxo bi set na mm-hmm. kon muy Thione sekk muy euh, Youssou nduur di Baaba Maal Ismaïla Lo Omar Pène Père Ouza ñu ñëpp dinañ jàppale waali ndax ñooy bàyyi waali Moussa Ngom moo jiitu dem coono ngi nii dem. Mhm. noonu la baayam yi fi des na topp ci ginnaaw baayam yi te xam naa ne dina topp ci ginnaaw baayam yi mhm. waaw